سميتها جالبة المراغب في آجل كعاجل للراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع صفاء باية أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك حمدك الراجي bayna yadayka musalliyan musalliman ala akrami lxalqi ladayka qaayilan ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya hibbana amartana bi an nusalliya ala sayidina man albariyata ala muhammadin wa an nusallima ala ya baaxiyan abxayna sarmadan wala wa sarmadan salli wa sallim ya karim hanni hali wa daxudu li maarum salli alayhi jamil ali سؤالي صل عليه في جميع سابي مع سلام وتودي لربي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تحسن من سلامة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود لسنة يلا وصل أبدا وسلما على نبي سبقه قد ولما وسهل في الهال وفي المال يا من بيستاز خير الأنبياء من الليل خب السر الأغبياء سلي بتسليم على النبي والآل وسامي وسمح فيه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 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر الله أكبر سمع الله ربنا allahu akbar allahu akbar allahu akbar الله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 rabbi aawudu bika min hamazaati shayatin wa aawudu bika rabbi an yaxduruun bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi amin sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwani wattamkin amma baadu فهذا اليوم يوم عيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد فاذكروا الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أخزى وأساء قال الله تبارك وتعالى wa ma aataakum rasulu fa xuduuh wa qaala allahu tabaraka wa taala fa man yacmal mitqaala darratin xayran yarah fa tuuba liman axada ma ataa bihi rasul alayhi bi alihi wa saxbihi salaama muti suul wa lilladi himmatuhu tartaqi ila alxayr laa ila alkadari waddayr wa waylun liman lam yaxud ma ataa bihi almuntaqa alayhi bi alihi wa saxbihi salaama man jaada bintiqaa أوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا فإن مفارقته تجر لكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصوابا فإنه بما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلب العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتق الله حيث كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في في جملة الآفاق أما بعد هذا اليوم يوم مبارك ولنا في شيء فيه لم نشارك فاحمدوا الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتخى عليه السلام بجميع مختفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتق الرتق فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يظفر بكل ما من الخير يصطفيه فاطلبوا من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم ضيره wa tuubu wa tuubu fiihi ilayhi tabaaraka wa taala min jumlati al isyaan fa innahu yaxfiru lakum wa yakuffu ila gayrikum dawi tooyaan wa tawajjahu ila rabbikum bilkitaabi walsunnati walijmaa fa inna allaha tabaaraka wa taala yakfiikum man abaw fiihi alijtimaa bi jaahidi alxasawaati almurdiya sala allahu alayhi bi aalihi wa sahbihi dawi alardiya الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu ci turu sëriñ bi di leen jottali ci ndigalam ci ndigalam kàddu yi may yëkkati mi ngi leen di ndokkeel yéen ak jullit yépp ci xew-xew bu màgg bii nu génn di weeru koor di ñaan yàlla nangul jullit yi yépp fi mashaariqil ardi wa mahaaribiha di rafetlu lool taxawaayu taalibe yi ci biir koor bi di ñaanal ñépp ñu daje ci ak ngërëmul yàlla te mooy mbégtam sëriñ bi lu yàlla gërëm rek loola nekk mbégtam sëriñ bi moog ñu baax ñépp nee mi ngi soññ taalibe yi bu baax ak di leen digal ñu nekk rabaani yiin ñi nga xam ne lu ñu xas fas seen diggante ak seen boroom duutuñu ko fecc waaye bañ a nekk ay ramadaani yiin te mooy ñi nga xam ne su weer wi tàbbee ñu góor góorgóorlu ci sàmm ci lool yokk ci seeni taxawaay ci yu baax yi waaye bu jàllee rek ñu dellu fañ ne woon nga xam ne dañuy tabax bam jekk ñu màbb at mu dikk ñu defaat noonu di tabax di màbb nag lu mu yàgg-yàgg defe naa ne ay toj yi tey bari rek waaye ab dëkkuwaay du am yàlla noonu yàlla musal ci loolu mi ngi leen di fàttali it ne bisub iit bi bisu rafetal la rafetal sunu diggante ak sunu boroom ci xeeti jaamu yi nuy def ak rafetal jëme ci jaami yàlla yi ci génn muri koor yi te muy farata tey ak saraxe ak dimbulee ak jokk mbokk gi ci siyaarante ak balonte àq sëriñ bi nee na ngi soññee ci yooyu yépp di leen fàttali it li sëriñ bu mag bi wax ci xutba bi ne fa hada al yowmu yowmu iidin li kulli muminin muslimin muhsinin said nee na bis bi iid la te mooy mbégte ak bànneex ñeel képp koo xam ne mu'min la muslim la muhsin la ab mu'min nag mooy koo xam ne day jox yàlla boromam lépp li mu moom bàyyee ko boppam ci anam yépp fu mu toll di teewlu waxi boroom bi ji wax qul lan yusiibanaa illa ma kataba allahu lana huwa mawlaana wa ala allahi falyatawakkali almu'minuun am mu soro mooy ki tënku ci ndigal yi yow boppam ci buumuk sariya ba nga xam ne du wuute ndigal te du teewe ak tere laa yaraahu llaahu xaytu nahaahu wala yafqiduhu xaytu amara am muhsin nag mooy kuy rafetal léppam di bàyyi xel yàlla ci ay jëfam ak jëflenteem di teg ci kanamam an taabud allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak lii la sëriñ bi leeral ci ñaari bayit yi an taabudullaha ka annakum maa tarawnahu fattabicu maa sharaca in lam takunuu qad ra'aytumuuhu fahwa yaral kulla faraaqibuuhu sëriñ bi nee na mi ngi digal bépp taalibe di laa bépp jullit ñu jéem a mel noonu te sëriñ bu mag bi abdullahi wa xadim rasulihi sallallahu alayhi wa noon na melo yooyu yi ñoo war a nekk ci képp ku soobu yàlla ku soobu yoon yàlla kun musliman wa musliman wa muhsina in rumta sayran lil ilahi tuhsina sëriñ bi nee mi ngi soññ taalibe yi ci gën a booloo gën a jàppante gën a sàmm mbokk diine ginu yàlla boole te sàmmloonu ko nu war koo sàmm ci suñ diggante ñun ci sun biir war koo sàmm it ci sunuy diggante ak yeneen mbokki jullit waaye ñoom it ñu war koo sàmm ci seeni diggante ak ñun jullit bu ne war maal moroomam jox ko àqam li koy sàmm nag mooy yéenante jàmm ak rafetal jëflante yi ak bokk li nu am te nag koo bokkal li nga am mu bëgg yàlla yokk saam am ak donte sa noon la bu ñu xam taalibe yi nañuy taalibe yi taalibe yi nañu teg ci seen kanam li sëriñ bu mag bi waxoon ne wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allaahu jullit bu ne war naa xam ne lii matam mooy fi mu teg boppam mu teg fa mbokkam laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axiihi ma li nafsihi kon nii nu ànde bokk fu nu jublu bokk lu ñuy def na ngeen fexe ba xol yi ànde noonu yéene yi ak njort yi rafetu noonu boo ko defee lépp lu ngeen bëgg dangeen ci jot lu ngeen ragal da ngeen ci mucc mi ngi fàttali ne àdduna ji nu nekk munta ñàkk nu fi dajeeg nattu ndax ab kasola ci nun ñi gëm yàlla ad suj sijnul mumini wa jannatul kaafir kon li war mooy di jéem a dékku nattu yi ci muñ gu rafet ndax nattu yi sunu boroom da ci fóot jaamam bi di ci yokkal ay daraja ma min muslimin yushaaku shawkatan fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha xati'a kon na ngeen bàyyi jàmbat yi tey sant yàlla di wax alhamdulilahi ala kulli haal ngi fàttali jullit yépp ne weer wii nu tàbbi di di shawaal nañu ku ci woor juróom-benn fan koo def gannaaw ramadaan mel na ne ku woor at mi mépp nee mi ngi ñaan nawet bi sunu boroom yeggale ko ci jàmm te lu ci ñor yàlla barkeel ko te saxal jàmm ci réew mi te jëme ko kanam ci anam yépp te loolu law ba daj fépp àddina wërangal kapp mi ngi ndokkeel it kilifay diine ak kilifay aada yi mu bokkal diine ji ak réew mi te di leen ñaanal tawfiq lii mooy kàddu yi ma doon yëkkati ci ndigalem yàlla nanu ko teewe at yu bari te rafetu fekkin ci gannaaw suñ kilifa gi di a Seex Sidil Muxtaar ñu koy ñaanal yàlla dooli ko sàmm yàggal ko fi kàttanal ko ba lim bëgg a def lépp mu def ko te am ci ngërëmul sëriñ bi abdullahi wa xadima rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa xadimi wa ummati wa sallam kon na ngeen taalal sëñ bi ñaan سميتها جالبة المراغب في آجل كعاجل للراغب قد انصرفت بالمراد قائلا مع سفاء بايتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باغيا أبغير سرمة ولا وسرمة سلي وسلم يا كريم هني هلي ودخل لي مارون صلي عليه جميل آلي ما سلام يستجب سؤالي صلي عليه جميل سابي مع سلام قدوة الأبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تحسن من سلامة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود وسنة يلا وصلي أبدا وسلما على نبي سبقه قد ولما وسلم في الهال وفي المال يا من بيستاذ خير من الله يخب السر الأغبياء صلي بتسليم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم فيه